4 avril mu nekk mm, jour bi nga xamante ne à chaque fois ci la ñuy féete indépendance au Sénégal. bon man je me dis que indépendant lu am la partout en Afrique particulièrement au Sénégal fii nii bon bu ñu waxee indépendant ñu tamit parce que matière yu bëri peut-être tubaab bi moo ñu koy jox affaire yooyu noonu mais mun naa wax indépendant nañ parce que bu ñu yeewoo dañu sant yàlla nekk suñu jàmm tamit loolu lépp la ko en fait boo indépendant wul mën a dem fu neex def lu neex tamit loolu man pour man indépendant la quoi. indépendance nit si nit lay nekk quoi en fait léegi li si des affaire nguur ak affaire yooyu noonu tamit ñoom ñoo ñu war a gën a jàppale jàppale population bi xam nga pour ñu gën a mën a améliorer wu ci côté indépendant quoi en fait. là man je me dis que ça le fait entre les deux xam nga parce que communauté yi dañoo war a xamante quoi le fait que ñu gën a xamante ku nekk mën a tirer sa sa intérêt personnel intérêt dëkk ci vois. xam nga parce que yàlla moo ko wax ci alxuraan maanaam ñu nekk fii dañoo war a xam ñu nekk fële ñu nekk fële dañoo war a xam ñu nekk fii mais kenn warul noot kenn quoi comme à l'époque affaire u nooteel affaire yooyu noonu yëpp da xam léegi yooyu amatul bon léegi dañuy wax esclavage spirituel moo am parce que léegi dañuy noot ci beneen anam boo gisee jeunes yu bëri jóge fii nii Afrique di dem ay Europe parce que ñuy gëmloo foofoo gën a neex te pourtant fi nekkee di am sa 1000 francs di benn la quoi ñun mënuñu dem xam nga Europe Europe bàyyi ñu ñun tamit Europe mënul dem bàyyi ñu quoi parce que ñoo war a mën a ànd France ak Afrique yàgg na quoi c'est des décennies xam nga avant suñu naissance ma loolu laa si xam quoi dañoo war a jàppalante affaire yi leer quoi ñu teg ko si yoon. waaw weeru indépendance bi day wax dëgg yàlla yàgg nañ koo fekke dañuy ñaan yàlla di ko gën di fekke yàlla dina may wér wér may ko suñu njaboot waaw indépendance bi nag daana neex moom daana gën a neex de. moo ci daan gën a neex noonu. ah dañ ko daan féete mu neex rek ñun day bi ñu nekkee xale dañ daan dem sax di seetaan yi ci wax dëgg yàlla waaw. ñoo ngi jóge léegi ca place ba ñu ñaa ngi préparé wu militaire yaa ngi foofu di seen défilé ak lépp mais yow daal lan nga foog ne tey jii buñ ko ci dolli woon indépendance bi dina gën a neex. ah, ah xanaa jàmm rekk ak yokkute daal buñ ko ci dolli woon moom doon na gën a neex moom jàmm ji gën a yokk xéewal ji gën a yokk waaw waa ren mu tombeek président bi du soog a falu doon def discours à la nation démb maanaam doon saafonteeg population bi di leen def ay promesses yi nga xamante ni moom la war a tenir ci durant cinq ans bi mu war a toog yow tey jii boo doon sas président de la république ban sas nga koy teg. xanaa mu am jàmm gën a am jàmm gën a yokk liggéeyam euh, di jéggale di baale ñi nga xam ne leen a kaso bi mu génne leen. ndax politique bi mu génne leen nag te yàlla tax waaw loolu dina ma neex. Mbacké Fall ñaaka indépendance nga fekkee ko. waaw ah war naa fekkee yu bari ah parce que am naa 46 ans waaye. kon yow loo mën nga ñu wax lu bari ci mbirum indépendance parce que nit ñi nee nañu Sénégal dafa indépendant ci benn côté beneen côté indépendant wul parce que ñoo ngi dépendre toujours ci français yi. ah c'est-à-dire ne colonisation bi dafa yàgg. xam nga nit moom boo yàggee ci moom bu la yaree lu mu la yar bu yàggee ak noo mën a màgg màgg màgg su la beree il faut nga jël ci ay jikkoom lu bari léegi rek lool li ko mën a dindi mooy ñun bañ ñu beree rek dañoo war a gëm suñu bopp mën a jiimal suñ bopp dara waaye jiimaluñ suñu bopp dara parce que tubaab yi ba léegi mel na ni ñoo ñu colonisé ba léegi ndax seen langue moom la ñuy waxee moom la ñu gëm soo dee wax sax wolof yoo xam ne dafa piire comme ni may waxee nii dañuy defee ne yow seer xamoo dara léegi il faut nga wax dugal ci ay tubaab boo ci dugalu tubaab day mel ni yow doo dara loolu mooy problème bi léegi suñu bopp moo tax. léegi yow ci comme que nga profité ci 4 avril bi nga wax yow lan nga xalaataale ci CFA bi lu fi war a jóg la wala loo xamante ni lu fi war a mën a nekk la lu yokk indépendance la wala loo xamante ni dañ cee nar a dépendre ba keroog ñi dee rek. ah waaw normal mooy li ma la waxan rek parce que indépendance moom comme ñoo koy féete toujours waroon nañoo am loo xam ne dañ koy yokk mu doon lu bees loo xam ne lii. du bokk loo xam ne tubaab yi dañ ñu koo jàngal mais c'est-à-dire ni koy defee rek ni ko tubaab yi defee presque noonu lañ koy defee kon amul dara lu bees loo xam ne lii nun yokk nañ ko ci kon mel na ni rek tubaab yi dañuy gën a coloniser rek ba ba ba ba mu jeex parce que loolu la ñu gëm su fekkee ne gëm nañu leneen am na beneen façon bu ñu war a mën a indi bu bokkut ak ni ko tubaab yi di defee mais nag nun ni ko tubaab yi defee rek noonu lañ koy defee lool mooy problème waaw bu ren bi dafa spécial parce que dafa tombé ak président toog doon def discours am démb discours à la nation indi ay promesses yoo xamante ni teg gëm na ni daal moom di si cinq ans yi muy toogaat dina ko def mais fii sénégalais boo gis ak am na loo xamante ni sas na ko président de la république te yow boo ko doon sas lan nga koy sas. waaw man de bu fekkee ne dama koy sas ndax fi mu ne sax moom daanaka mënuñu toujours wax ne dañ koy sas ndax moom comme. lim ñu waxoon am na loo xam ne waxat nañ ko am na lu mu def am na loo xam ne defagu ko am na leneen lum ci xaw a dolliwaat sax ci bi muy campagne ci euh, bi ñu koy nommé bi ñu koy bi koy fal bu yàggul léegi am na lum ci dolliwaat kon léegi nag luy man lu mooy diglu ko li mu waxan moom mi ngi fi ñu ngi ko enregistré ñoo ngi ko teg parce que bu njëkk da nga daan wax kenn du ci bàyyi xel ñu toogee ba yàgg journaliste yi comme yéen la ñuy euh, ñoo ñuy beesalaatal dina wax ne waxan na lii mais léegi ñëpp ñoo koy enregistré ñëpp a koy am léegi nag problème boobu moo ñuy topp ba fi mu nekk nii président yi ci boppam lépp loo xam ne waxan nan ko am na lu mu ci def am na loo xam ne defu ko am na lu mu dolliwaat ñoo koy déglu nag ba xam li mu waxan dina ko def wala du ko def ah, leneen li koy mën a dolli mooy ñi nga xam ne ñoo ànd nag moomu parce que euh, euh, Sénégal problème bi li fi nekk mooy ñi doon gouverner ñooy fii nekk di góor gouverner ba léegi ndax ñii dañuy ànd ak benn régime. régime bi dem ba yàgg régime boobu daanu ñu jaw la nga amu ci beneen régime régime boobu jëlaat leen ànd ak ñoom ñu continuer dem loolu moo fi am ba ba ñu indépendance ba léegi loolu moo fi am. merci papa ñoo ngi lay gërëm di la jaajëfal. jërëjëf.